nuyu mbooleem internet yi fi nekk yëpp di leen ndokkeel bu baax a baax di ñaan yàlla koor gi ñu dëgmal yal na yàlla nangul ko ñun ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf ginnaaw bi ñu leen mastawoo sunu wayjur wu tedd fi bàyyi ko muy wayjuru soxna Bijou Ngoné Bijou di sunu xarit di sunu soppe yàlla boole nu waaye maire bi itam nekkoon sama soppe ndax ci biir feebar bi rek ñëw naa seet si ko. ñu toog pendant trent minutes waxtaan lu yàgg ndeysaan ay keroog bi mu ma gisee da ngay gis ni cofeel bu rëy rëy la am ci man boobu mi ngi tawat tabaarakallaahu ba tey yàlla dogal li mu dogal ñu ñëw fi ndax yàllaak moom cofeel bi mu amoon ci ñun waaye ñu ñëw fi itam ndax yàllaak soppe bi nga xam ne dox na ci suñu diggante ñun ak bisu ngoone bokk liggéey bi muy sunu xarit ñu nekkandoo ci média yi mu nekk 2STV ñu nekk TFM bu dul loolu it yàlla boole ñu ñu am ay relation yu rafet rafet wax dëgg yàlla loolu moo waraloon suñu teewaay doon en tout cas xam naa ni nit ku bëgg way juram la te souvent ci samay waxtaan damay insister ci doom nan la war a fonkee way juram ndax sa way jur feebar nga indi ko ci sa biir kër di yeewu di ko toppatoo mën nga ni sa temps bi ëpp ci sa journée bi ci moom nga koy passé cofeel boobu bu ko doom amee ci way juram mën nañu wax ni nit kooku nit ku baax la parce que yàlla def ni waqadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni soo paree ci man yàlla li ma la sant na nga jublu ci say ñaari wayjur def warte fii war sa diggante ak ñoom moom nag ku fonkoon wayjuram la nekk jàmbaar ñu xam ci moom fulla ak fayda ak liggéey ak dundee ñaqam ku noonu nag wax dëgg yàlla bu ñàkkee wayjuram daañu ko massaw daañu ko ñaanal yàlla yàlla yéegi ko ci barzaqu yonent bi sallallahu bi nga xam li mu soxla mooy ñaan jàngal ko Alquran def ay salaatu ala nabi def ay azkar astaghfirullah yu bari ñu bañ ko def rek programme boo xam ni dañuy daje wax waxu àdduna après mu jeex parce que léegi dëj yu ci bari boo demee da ngay gis ni nit ñi ba tey dese na noo xam li tax ñu daje fi. li gën a am solo mooy ñaanal ki faatu parce que ki dem moom soxlawul dara dara ci ñim fi bàyyi lu dul ñu ñaanal ko nañuy gën a bàyyi xel loolu muy fii muy feneen ak feneen message la boo xam ne dañ koy fàttali képp koo xam ne rek yaa ngi jug pour jaale ji nit nga amee comportement bi nga xam ni moom la lislaam bëgg mooy boo demee boo mënee jël sa kurus nga jël sa kurus ñaanal ki nga xam ne moom moo tax ñu daje fi alors Oustaz euh, ñuy dugg si weeru koor euh, li polémique da si am ñu naan mais xanaa li yonent bi waxoon rek suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku gis ku la doy mu ne weeri feeñ na nga woor ku gisagul ku la doy nga bañ a woor du yomb de problème boobu moom du neex a régler ci Sénégal parce que ba tey am na ñu woor tey suba am na ñu a woor parce que problème bi mooy kooru Sénégal ci date lañ koy jàpp ñun fi mu ne nii koo laaj deux mille vingt cinq xam na koor gi kañ la. parce que ba nga dalee dégg la onze booba yaakaar naa yàgg na de la onze mooy koor gi mais ñun sukkandiku ci gis ku nu doy rek mu ni weer yu feeñ na ñu wóor mais daal day doon loo xam ni rek question de confiance la ki ngay gis daf lay doy ki la koy wax daf lay doy bu la doyee nga xëy um bu la doyul nga bàyyi ba beneen yoon nga wóor. am Kër Massar bari naan xanaa ñoom nekkul Kër Massar man faal Njaga Yaaram mii day ci waa mardi laa bokk ñiy woor mardi man ci laa bokk parce que loolu moo ma doy keneen ku woor tey doy mm. am nga ci plein droit pour woor ñi nga xam ne wooraguñu mën nañ ba suba woor maa ngi yéen a bokk groupe mardi ñun waa mardi mooy ñun waa mardi xam nga koor li ma wax léegi am na ñoo xam ne tey moo dal seen xel pour ñu woor ci lënd bi ñooñu woor nañ ñi suba ñi suba dal seen xel ñoom ñu woor suba. mais mais lañ gis la la plupart la bi mooy euh, bu fekkee lañ naan weeru feeñ la maanaam jour Korité la la plupart sénégalais yëpp ñoom tamit dañuy dog mais bu ñu nee woor la rek ñu bëri tamit maanaam dañuy xaar. depuis jamonoy Seydil Hadj Malick ba fi may wax ak yow Sénégal dañoo am problème mu weer. ak lu jiitu sax El Hadj Malick du ñu toog nag ñooñu ñëpp jaar fi ba deux mille vingt cinq bii wala deux mille muy réglé woo ci man man mënu ma koo réglé problème mu weer moom dama lay benn affaire du fi jug parce que dañoo wul loolu du fi jug comme question de jaamu yàlla la nag nañ bàyyi ku nekk li dal sa xel nga def ko ñu bañ cee polémique ki woor tey dal xelam mu woor tey ñu ñaanal ko yàlla yàlla nangul ko kooram ki suba dal xelam ñu bàyyi ko mu woor suba ñu ñaanal ko yàlla moom itam yàlla nangul ko kooram mais bu ñu fi bëggee nekk mi ngi mel ni masala bi nga xam ne tey ci julli kii julli def nii ak kii julli def nii pourtant ñaar yi amu ci benn buy yàq julli boo defee nii baax na boo defee nii baax na kon ñaar yi bu ñu la tardeel noonu la demee itam ci masala koor bu fekkee yow woor tey moo la doy fa mën man shahida minkum ash-shahra falyasum bu dee suba moo la doy bu subaa nga woor rek mu jeex oustaz gis ne Sénégal suñu koor dafay doy waar maanaam muy góor ñeeg jigéen ñeeg restaurant yeeg yëpp ay doxle tey dem nañ ba jël benn phénomène boo xamante ne xale mbaxalu koor lañ koy wax maanaam ci yor yor weeru koor gi lañ koy taamu tey ñooñu ana lan nga leen waaw mooy ñi ñi nu yarul ci lislaam rek xam nga bu fekkee dangaa juddu kenn yarul la ci lislaam xamoo diine tàmmoo julli tàmmoo jaamu yàlla xamoo daray lislaam koor du la toll fenn loo daan def ci budul weeru koor koor nga koy bàyyi da ngay yeewu añ di yëy sa singom di attaaye comme ñëpp doo yëg ni sax ñu ngi ci weer ñooñu nag mooy ñi yàlla sànq ñooñu foo leen gis bu ñu la wërlowee ko al ko jàppal ko ko yóbbu parce que yàlla moo leen xam nga am na koo xam ne amul fitu sax wéet ci biir néegam moom sël mu ubbi firigoom bëccëgu weeru koor di naan dèjà am na am na koo xam ne moom complexe naa def loolu ndax digganteem ak boroomam mais am na koo xam ne yàlla nee na amul daray kersa man maa dem ba dindi ci moom kersa ba lu mu defagul rek séentul ni dafa jotagul waaye sañ na koo def mooy ñi nga xam ni plein weeru koor amuñu ngant xam nga jigéen day am ngànt ci weeru koor bañ a woor ñu nangul ko ko mais amoo benn ngànt bañ a woor foo ko teg nee ma réew dafa réew réew kese la ak yëg sa bopp ak ñàkk a respecté yàlla waaye ku respecté yàlla li yàlla santaane di nga ci nekk. na nga gisee maanaam phénomène bi nga moo xew euh, trois ans la wax Sénégal yi ñun ñoom la ñuy tëj maanaam koor bi ñëw ñuy tëj tëj saison boobu. nañ fexe ba buñ ko tëjee uh-huh. ñoom ñu koy tëj uh-huh. nañ fexe ba buñ ko tëjee uh-huh. ñu wax yàlla pourquoi ñu tëj ko waa mais waa mais mais mais mais mooy yàlla ku koy tëj yàlla damay def mooy yàlla parce que dama koy tëj loolu saboote yàlla la bakkaar bi nga def ta tayoo ko soo ko baaloo yàlla yàlla mën na la ko baal mais bàkkaar bi nga xam ne bi nga koy def da nga ne yàlla suba la wóor suba la koor gi demee damay tëj tey dèjà yow jël nga say matukaay pour ni dangay mooy yàlla loolu Sénégal rek la bu oustaz pour jeexal waxtaan wi rek ndax dañuy jël sa temps tey dañu la bëggoon laaj jigéen bi nga xamante ne mi ngi say nekk ci biir néegu sax. Ah, waaw. stade mooy faa côté air drop ko rek am ngeen son ah bu air drop ko